écarter un leader politique comme Ousmane Sonko comme ni mu ko waxee suba euh, wala bu ñu yeggee ci voté loi boobu di nga ko vote ak nag noonu nga ko gisee. ah Fatou Abdou pour tontu la dama bëgg fàttali sama bopp fàttali sénégalais yi mais surtout sama mbokk député yi wax boo xam ne xalifa bi sëriñ Bassirou Serigne Babacar Sy. Serigne moo ma ko waxoon. tam wax na seedaloon na Sénégal yëpp ne wax na ko ñeneen Abdou Mbow mbay ña mu Moustapha Sello ak ñeneen na ñeneen daf ñuy waxoon nañu bu ngeen demee assemblée te loolu du nañ ne guléet ci Tivaouane ku ne xam na ne docteuru xol yi ki ñu suul ci bàmmeel ci xolu nii doomu adama yi muy rahmatullahi alayhi ma dabaax na ko wax mhm. ci naan bu ngeen demee assemblée di voté bu leen xool seen digganteeg Abdou Diouf bu leen xool seen digganteeg Abdou Aziz Ndaw xool leen seen diggante seen borom keroog yomal xiyam. Mhm. sëñ Babacar Sy Mansour daf ñu waxoon nañu yéen état leen état yaakaaru leen wi moo leen def député mhm. su ngeen demee assemblée nationale na ngeen seet seen akule talaal ngeen di wote ba te mu méngoog intérêt wu askan wi sous ce rapport précis comme ni nga ko waxee yow une loi est de portée générale elle est impersonnelle. Mm. ñoom bi ñu waxtaanee ci dialogue national ba pare indil ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun la Sénégal charte réew mi may askan wi fàllu ñuy dogal ay loi ñuy voté loi ñun document bi ñu jot tudduñ ci turu ma Samba tudduñ ci turu ma dem dañoo indi rek mbindin woo xam ne dina tax yenn gàllankoor yi mën a dëñ loolu nag àggaguñ ci pour ne pas jaxase xelu doomu aadama yi pour lii xew suba ngeen ma laaj mm-hmm. suba lii xew modification mais mais mais laaj naa la ko ci bu ñu ci yeggee yow. waaw waaw maa ngi ñëw yaa ngi koy wax. waaw mais dama bëgg ma dama am. problème de cohérence ñu war a wax maanaam damay bañ. sa mbëxtal lii xew suba ak lii xew ay jour ci kanam. <laughs> kon nañ waxagum ci lii xew suba lii xew suba laa wax. suba li ah. ñëppay xaar mën koo jot. waaw loolu laaj na la ko man li ma la laaj mooy lii xew la ne suba. Mhm. article vingt neuf. dinañ ko modifier. c'est clair ce que vous avez dit là-dessus. suñu paree ci article vingt neuf. muy constitution bi. dinañ ñëw ci code de procédure pénale foofu it liñ ci jublu mooy jëlee fii CREI te loolu li ko und mooy motivation yi man en tant que législateur en tant que député de la nation mm-hmm. ni ma ko gisee mooy adaptation ak spécialisation mm-hmm. liñ daan dénk CREI yi ak nit ñi di ko ŋañ ne jekkul jaaduwul juridiction spéciale la juridiction boo xam ne ni garantiwul les droits de la défense mm-hmm. de la défense léegi dañ ko dañ xam nga bi bi Covid amee ni ñu xam ne ñu adaptation adaptation moom mooy ànd ak jamono mooy tax nga mën a doxal jamono. adaptation boobu sur ce plan honorable am na sa collègue boo xam ne Thierno Bocoum am na expérience parlementaire moom jàpp na ne loolu ñuy laalaat ci code de procédure pénale bi loolu confusion lay indi parce que am na juridiction yu fi xas a nekk te bu ñu leen gënoon dooleel mën nañoo liggéey li CREI yi doon def. waaw man dama dama dégluwuma bu baax mon ami et frère l'honorable député Thierno Bocoum vous savez député boo ko xasee ba nekk moom maire yam ak ministre ak président ad vitam aeternam dañ la koy wooye dégluwuma ko kon mënuma wax ci waxam. waaw mais confusion bi mu apporté ci kii bi ci projet de loi boobu maanaam ci révision code de procédure pénale bi moom confusion la ko gisee ndax am na yu fi nekk ñu renforcer ko moo gën fuuf ñu fi naan dañ fi indiwaat beneen juridiction utaat fa beneen personnel alors que ci justice bi am nañu problème mu personnel ci lu bëri. bu fekkonte noonu la. àdduna benn benn coppite benn jéego buy méngale ak xarala yeeg évolution science ak connaissance du am nañ daan solo ak ni ñuy solo léegi du benn te ay dañuy solo ba nëgë ni ni nga daan defee journalisme ak léegi ni koy nit ñuy defee du benn jàpp naa ne moom mi ngi ci rôle waaye ñun en âme et conscience fidèle à l'esprit qui sous li ñuy liggéey ak li tax ñu dem ci session extraordinaire dialogue national moo amoon ay doomu aadama jàpp ne lii mën naa indi aafiya jàmm xel mu dal rafetoo ak ñoŋal yorinu réew mi ñun ma tax ma ne la adaptation ak spécialisation moom nag bu ko neexee mu nekk mu ne nañ jàpp li fi nekkoon waaw mais même un député actuel wax na ko muy Thierno Alassane Sall. comment Thierno Alassane Sall dit la même chose. la dañ ko def en catimini. sans pour autant li nga wax la preuve que li nga wax. méngóo na ak li Thierno Alassane Sall def. Mhm. sur cette loi. biñ ko yaa ngi may yóbbu sax ma def lu mel ni uñu mbóot commission technique d'accord ci te <laughs> commission technique Thierno Alassane Sall moom euh, d'accord ci ñu supprimer CREI yaa ngi wax avec beaucoup d'aplomb maa nekkoon ah, ah, waaw ah <laughs> xam nga waaw man euh, euh, dama ne du nekk mhm. dama ne du ne jonn mhm. ñaan mu ne dëgg la du dëgg mais Thierno Alassane maa fa nekkoon oui sama akulaay taala wax moom mhm. li mu annoncé woon ak li mu wote dafa méngoo. ah oui c'est tout ça son honneur. Hmm. unanimisme amul fenn moom li ma déggoon wax ko abant hmm. ak ba mu fa yeggee argument yi mu joxe bi ñuy wote dafa wote contre. oui moom jàpp na ne CREI bi loi bi modification bi warutoon am donc suñu wotewuloon loi bi nii. crédit bi day continuer am ni mu amee. waaw ba tey ci waaw ba tey ci modification yi article vingt neuf bi maanaam grâce bi président di maye muy muy tax ñu réintégré ku ñu tëjoon ci biir fichier bi. alors loolu est-ce que sañ bu ëpp tamit. ba tey ci exécutif bi nga xam ne. Mhm. dafay immiscé wu ci dogalu justice. mais aussi di am droit ci kan moo war a duggaat ak ku war a génn ci fichier électoral. bu baax a baax. dégg ma xoolal. Mhm. ba ma amee ba ma amagulee en ba nag nii. ay nit laay jiite déglu laay def. dëgg la. du dëgg. dama leen bëgg liiral lu article bi pour ngeen parce que li ngeen di wax ak li nekk fii du benn. Hmm. ok loolu laa bëgg ngeen dimbali ko. Mhm. su la neexee ma doon tëmbali ko yow. pour que allez-y non non allez-y non non allez-y demal allez-y c'est plus clair avec vous. non non non allez-y allez-y yaa koy gën a maîtriser allez-y. non non c'est pas une question de maîtrise. <laughs> article unique. waaw. le projet d'amendement proposé à l'article unique portant révision des dispositions de l'article 29 de la Constitution. est rédigé ainsi qu'il suit. Article 29. Mm -hmm. Les candidatures sont déposées au greffe jours francs au moins et 75 jours francs plus avant le premier tour du scrutin. Mm -hmm. Notez bien. en cas de décès d'un candidat, le de nouvelles candidatures est possible à tout moment jusqu'à la veille du scrutin. Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel. Les candidatures sont présentées par un parti politique mmh. ou une coalition de partis politiques légalement constitués ou par une personne indépendante. Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de deux points. Premier tiré, soit la signature d'électeurs représentant au moins je passe sous silence les les virgules hein. Mm -hmm. représentant au moins au minimum virgule zéro pour cent et au maximum virgule zéro virgule huit pour cent du fichier électoral général. Très bien. et étant domicilié dans au moins sept régions. Mm à raison de deux mille au moins par mm -hmm. région. Très deuxième tiré soit. la signature. dama juum ci article vingt huit bi. attends oui oui attendez justement mais vous voyez. maa vous voyez. Mm-hmm. moi. je n'ai pas le droit de. absolument bien parce que ah. je suis là pour édifier les gens. donc c'est important. oui ah. je termine la lecture pour les Sénégalais qui nous suivent. Mm-hmm. soit la signature d'élus représentant des membres de l'Assemblée nationale ou pour cent des chefs d'exécutif territoriale. Mmh. Un électeur ne mhm. Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi. Les candidats indépendants, comme les partis politiques, mhm. de se conformer mhm. à de la présente Constitution. Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne mu ngi nii ceux qui sont de contumace. mu ne. jite nañu madame man ah, man as man maay man maa nekk député en exercice. <laughs> article boobu. boobu ngay eh. wax. ak ñun bi ñu wotee. Mhm. dafa woote bii lañ wax. waaw mais ba tey bu ñu ñëwee ci article vingt huit li ma la doon laaj. concerné wu donc article euh, L vingt bu code électoral mu ngi nii. ci ñi nga xam ne bénéficié wu nañu. ci grâce ak amnistie ñu intégré waat leen. ci fichier électoral bi. Ndiaye jaata xam nga dañuy wax Sénégal Ndiaye nit Ndiaye gaynde Ndiaye wolof Ndiaye. rikk daal man lii xew suba laa wax. Mhm. révision constitution bi ci article vingt attends ci article vingt neuf bi dong la so concerné. Mhm. attends suba. Mhm. la loi portant code de procédure pénale la ñuy modifier. très bien yem fa. ak article vingt huit bi tamit. attends man maay député. très bien yow député yow da ngay dégg rek. on projet non projet. Euh, euh, oui projet projet bi ngeen jot. mu ngi nii exposé des motifs bi yëpp mu ngi ni ak révision article. léegi maintenant demain ci plénière bi on aura toute la presse et les médias là-bas. daañu xam les tenants et les aboutissants mais il faut qu'on avance oui. du dëñ. très ñaari loi yi benn loi bi constitutionnelle la. Mhm. benn bi loi bi c' est sur le code de procédure pénale. Mhm. léegi nag du tere danañ dajawaat beneen yoon en commission technique. Mhm. waxtaanee yeneen loi document yooyu ñu jot nañ ko mu ngi nii. très bien kon suba L 28 bi du ngeen ko laaj. suba <laughs> tey mm. du ma sotti xam nga euh, booy togg <laughs> da ngay dafa am étape. lu nekk waxtu bu koy def. damay laaj rek ndax. alors bi di ngeen ko laal. wala lépp ne ci añ bi. alors <laughs> euh, bu ñu ñëwaatee ci euh, candidature Benno Bokk Yaakaar le parti socialiste bi nga bokk ci biir Benno. ah ñëwoon nañ ci déjà wala dañ dañ ci war a. ñëw non dañ ciy ñëw. Ah, waaw ci la ñuy ñëw. <laughs> <laughs> PS bi nga bokk te bokk biir Benno Bokk Yaakaar coalition présidentielle. alors ñu ngi xaarandi ba léegi seen candidat parce que le choix. Euh, dafa war a tukkee ci président coalition boobu di en l'occurrence le président Macky Sall alors euh, ci choix bi mu mën a def ñu bëri ñu ngi koy jox carte blanche am na carte yu fi jubóor ne PS jox na carte blanche président de la République sur le choix mais maintenant quelle est la position concrètement du parti socialiste bi nga bokk yow ci choix wu président de la République bi mu war a def ban position ngeen ci amee. par rapport ak candidat bi ngeen war a am en deux mille vingt quatre. alors Rahmatoulaye Aley président Tanor Dieng daf ñu doon wax ne pour éviter les conflits il faut s'entendre sur les mots. Oui. Vous avez invité le porte-parole du Parti socialiste. Mm -hmm. Et vous avez interrogé le porte-parole du Parti socialiste. je vous donne la position officielle du Parti socialiste. absolument loolu en a <laughs> on attend. dimbali leen ma ba bu dédoublement <laughs> fonctionnel. parce que tout à l'heure c'est le député qui parlait. premièrement. Mhm. le Parti socialiste.